qu'ils se souviennent simplement m'avoir dit ce fajar là na fàttaliku rek ni fajar googee wax na ma ni tàmbaleegul woon woor ndax dafa am jàngoro bu ko jàpp loolu sax moo tax mu yéex a daal di wàcc mu di jàngoro boo xam ni nemmeekuma ko ci moom seetluwu ma ko benn yoon ndax dafa nduru woon ku nekk en forme. maladie que personnellement je n'ai pas observé au cours de notre entretien où il s'est montré particulièrement en forme. l'épreuve douloureuse. su nekkul woon jafe-jafe bi mu ne di layoog justice ci luñ koy jiiñ ci wàlluma diffamation ak wiyoole ndaw su am ñaar fukki at dinaa ko tontu ci anam bu metti loolu waaye nag ci mbir yu ni mel damay def rek li yonent bi santaane mu di daal di koy fësal sama njàppandal ba mu weesu jafe-jafe bi. J'aurais été extrêmement dur contre lui.